mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàqu ci yéen tey nag bu ngeen gisee ku ñu toogal yaakaar naa ne kenn du ko laajte muy Balla Diouf ah kër de Lion mi ngeen xam bu baax a baax ci làmb defe naa Balla Diouf kër de Lion moom képp kuy sénégalais di suivre làmb foo ma a ne xam nga ko ci écurie Fass xam nga ko ci écurie Yoff xam nga ko tey ci jàmbaar wrestling walla boog loo ci mën di dégg daal moom lañ toogal fa seen seex ak mu waxtaan ndax nag daa lu bees loo xam ne nii moom la nar jëm ci li wax ah moo tax na ñu bëgg cee gën a indi ay leeral ndax nag net li si laame ñu waroon la dàq yàgg maar Balla maa ngi lay nuyu di la ziar. salaamaaleykum euh, Leewtoo TV. yëkkatil sa micro. maaleykum salaam Babacar. Mhm. di leen nuyu di leen ziar di nuyu mbokku Leewtoo TV yëpp. Mhm. et puis di nuyu Sénégalais yëpp ak monde lamb. Mhm. Euh, Balla Diouf ak Gris Fass moom jarta laajte fi may li may tënk rek mooy Balla Diouf avant Fass dafa newoon si beneen écrit wala Fass rek la dooree bëri. waaw yëkkatil micro bi tuuti euh, Bala Diouf avant Fass nekkoon ne écrit Mermoz. Mermoz mais mosuma fa bëre. Uh-huh. Euh, apprentissage laa fa def. Uh-huh. donc jóge fa nag ci laa ñëw Fass. ci nga ñëw Fass sama combat yëpp fa laa ko bëre. Uh-huh. Mermoz bi mu fay nekk ñan yan grand nom nga fa nekk ñu am tour ci làmb ñu daan bëri ñoo xam ne. bëri na bëri na euh, Pouy 2 mi ngi fa woon. Forman numéro 2. mi ngi fa woon Khadim Ndiaye mi ngi fa woon Kadde gi. mi ngi fa woon Serigne mi ngi fa woon Mbaye mi ngi fa Pape Sène mi ngi fa woon. donc ñooñu ñoo ñoo nekkoon ci. ñoo newoon si bi boobu. Mhm. mel ni jamono yu écrit Mermoz tamit amoon na doole de. non Mermoz ay jamono wax dëgg yàlla à part at ak mhm. Pikine. Mhm. moo fekkoon doole. moo fekkoon doole. nga jóge fa ñëw Fass. ma jóge fa ñëw Fass donc apprentissage bi ma continuer ko écrit Fass. wax dëgg yàlla jàng fa lu bëree bëri bëri bëri euh, yàlla def nag euh, sama apprentissage yàggul ci làmb. Euh, deux ans laa def écurie Fass. Mhm. bëree sama premier combat donc sama premier combat ba sama sama septième petit combat daanuma ci laa bëree spécial pour bu njëkk parce que pour nga bëre grand combat foog nga bëre petit combat ba amateurs yi xam la. Mhm. parce que amateurs yi fi nekkoon bu njëkk dañu xamoon mbër yëpp. <laughs> waaw loolu am na. pour nga bëre grand combat micro bi tuuti waaw. pour nga bëre grand combat. Mhm. foog ñu tëggal la spécial wala jooni jooni. waaw yooyu yëpp daan naa. buñ la tëggalee spécial boo daanee. ñëpp. Ah, la monde làmb ñëpp dinañ xam ne kii combat ba ca topp grand combat la doon mhm. keneen ka tam ka daanu dinañ xam ni beneen combat ba ca topp mhm. dina bëriwaat pour euh, amaat chance bu bëriwaat grand combat mhm. bokkul ak léegi nga xam ne da ngay dëkk ci koñ siiw bëri bayre ñëw bëri grand combat làmb bu njëkk da ngay apprentissage bëri petit combat troisième combat prouvé quatrième ba deuxième combat boo prouvé nag ñu bëri tëggal la spécial pour wane ni kat kii combat spécial la bu si jógee grand combat war dem grand combat donc yàlla suturaal ma ci ma ñëw rek mhm. euh, sama ko petit combat yëpp ma yàlla suturaal ma ci maam ci ay ndam euh, def tamit ma teel a grand combat ma teel a bëre grand combat aussi toog sept ans yàlla suturaal ma daanu ma. daanu donc ba ni ma duggee ci mini championnat bi après ni tolof tolof yi ñëwee. Mhm. jàpp nga ban année nga njëkk a bëri euh, lamb lutte avec frappe. waaw lutte avec frappe maa ngi ko njëkk a bëree 2001. 2001. 2001 laa njëkk a bëre at euh, ki ñuy wax euh, Baboy Diouf. Baboy Diouf nekkoon écurie Pikine. waaw ba fa jógee ma bëreeg Forman 2. Mhm. Euh, Forman 2 nekkoon écurie Mermoz. waaw ma jógee Mermoz la fa ñëw. et ma bëreeg ku ñuy wax Abdou Ngom écurie Pikine aussi toujours. Abdou Ngom oui. waaw génération booy Sey la. Mhm. donc mi ngi Espagne léegi. Mhm. ba ma fa jógee ma bëreeg Abdou Ngaka. Abdou Ngaka waaw moo fa jógee ma bëre ma bëre ak Abdou après ci laa bëre at Ndiaga Sarr defe naa mhm. Ndiaga Sarr Ndiaga waaw ci laa bëre Ndiaga Sarr bëre après ci laa bëre at euh, nu mu tudduti waaye euh, Xaadim Sarr Xaadim Sarr bu Pikine Xaadim Sarr bu Pikine mhm. euh, ba ma bëre Xaadim Sarr bu pikin kan laa bëre waatal am na ku ma bëre waatal après door a spécial maanaam daal mu nekk lu loo xam ne daal wan balaa ngay nekk mbirum grand combat rek il faut nga wane sa bopp ci lu leer nañ waaw bu njëkk làmb ji moom <laughs> waaw waaw bu njëkk làmb ji moom amul brûler les étapes mhm. boo ñëwee ci làmb amateur yi xamuñu la waaw da ngay wane sa bopp jaar fi ñëpp jaar doog a mën a ñëw ci kaw boo ñëwee ba ci kaw nag mhm. bu njëkk loolu tax làmb doon neex mhm. bu njëkk boo bëree ba àgg grand combat daanaka day fekk nga ñor parce que yoon bi nga traversé day metti grand combat bien day fekk nga ñor am expérience bu bëri am bu bëri tàmm géew tàmm làmb mhm. xam nga xam xam li ngay def mhm. mais malheureusement làmb at euh, nouvelle génération yi les données bon changer internet sponsoring mhm. organisation micro bi business plan lépp dugg na ci ba tax na léegi lépp dafa évoluer mais évoluer wul dans le bon sens mooy euh, léegi da ngay jég gis sax mbër yu bëri doo leen xam. Mhm. amateur yi amateur na toog si làmb mbër di bëri mu ne kii kan la bu njëkk loolu daawul am. daawul am mhm. am na solo. Bal del yëkkati micro bi léegi nag su ma ñëwee si sa passage ci biir écurie Fass moom foofu moom jaar-jaar ku ne fa nga defee sa làmb yëpp man nañ ne. Mhm. ba jóge fa tey eh, ñëw écurie Yoff bi nga ñëw écurie Yoff écurie ñaata combat nga fa jot a bëre. waaw écurie benn combat fa bëre. yow ak kan benn combat laa fa muy euh, mag euh, Tidiane Faye. du Tidiane Faye non Tidiane Faye. Fass la Koña non non la. mag Koña. waaw. waaw amaat fa combat mag Nandi Fall donc euh, combat boobu mujjul woon abouti. am. parce que blessure la amoon après combat bi mujjee. mujjee kii mhm. léegi écurie Yoff boobu bi nga fa nekkee ba wala ba tey Balla mu ngi écurie Yoff wala dafa bàyyi écurie Yoff définitivement. waaw écurie Yoff wax dëgg yàlla ba ma jógee écurie Fass. ñëw écurie Yoff ñoo ma wax dëgg yàlla dalal ma ba pare dugal ma seen biir mbër yëpp muy ñoom Malick mhm. ñoom euh, Dubun bu ci ñoom Modja mhm. ñoom Paaji booy yëpp mhm. vraiment ma passé ak ñoom ñaari at wala ñetti at yoo xam ne wax dëgg yàlla micro bi waaw euh, at yu qualité la c'est des c'est des moments de qualité. Mhm. yoo xam ne wax dëgg yàlla partagé nañu. Mhm. lu bëri ci làmb parce que ba may ñëw ci làmb daanaka écurie Yoff mi ngi ba may ñëw écurie Yoff daanaka mi ngi door a so mhm. sosu donc booy tamit amoon lu ñu prouver ci làmb Malick di boobu mu ngi prouvé. Dubul mi ngi prouvé moo jam mi ngi prouvé. donc bañ ñëwee nag bon suñu expérience lañu ñëw. donc li ñu xam ci làmb yokk ko rek yokk ko booy fréquenté leen. entraîné at ñoom. vraiment wax leen yoonu làmb lan la. wax leen yoonu làmb waaw ba tax na daal mu nekkoon lu lu ma neex. Mhm. ba léegi nii may wax ak yow relation yu rafet laa am ak waa yoof ñëpp. Mhm. muy ñoom bàyyi ngañ ba ci mbër yi. Mhm. parce que mun naa wax ni man yoof laa bokk. Yoff nga bokk feneen fu ma mënti bokk nekk tamit dama bokk Yoff parce que dama fi am cër. donc euh, ba tax na euh, ba lii amee dama woo bàyyi ngañ. Mm-hmm. ñu waxtaan ci mu rafetlu ko trop parce que tamit nit ki boo demee fenn ñu accueillir la mm-hmm. Mm-hmm. boo fay jógee war nga fa mun nga war nga mën a waxtaan ak kilifa yi te mu rafet donc mu rafet lool moo bàyyi ngañ mu rafetlu ko trop ne ma jaadu na ba ma ci waxtaan ak Malick moo mu kontaan ci trop waxtaan ci ak mbër yëpp ak yenn ci dirigeants yi ñu kontaan ci ñaanal ma tamit ñu xam ne tamit yoof dama fa bokk mais fee may dem ne sama kër la fu ma bokk la suma rakk moo fa nekk parce que boo xoolee ba Papa Sow taxawalee jàmbaar wrestling academy mook père ba ñoom ñoo ma woo. ñoo la ne ma kat dañ laa soxla. Mhm. bañ ma waxee projet bi boobu kat daanaka sax bu ñu yéexoon tuuti sax. Mhm. bu daanaka mënoon naa delluwaat écurie Fass. Mhm. waaw parce que boobu Tafa Gueye mi ngi def ay démarches ñëpp pour ma. dikkaat Fass pour ma ñëwaat écurie Fass yor écurie bi. parce que boobu sori woon nañ ci trop ci ay démarche donc ba Papa waxtaanoon nañ ci finalement ci lañ décidé. Mhm. taxawal jàmbaar wrestling academy donc ba ma gisee projet bi donc mu mu mu mu adéquat. mu con mu convaincre la daal. convaincre ma. Mhm. ma gis ni kat micro bi. waaw ma gis ni kat lii. Mhm. wax dëgg yàlla Fass nekkoon naa fa. su ma fa delluwaatoon tamit euh, daanaka dama fay dem malgré parce que lu ay nit bëggoon la. bëggoon ko imposer. Mm-hmm. mais lii man lu ma bëggal sama bopp la. Mm-hmm. lu ma dem et lu ma rafet lu la et parcelle. Mm-hmm. Euh, sama carrière kër ñoom Papa la commencé. fa la départ. fa la départ sama premier combat ba septième combat seen kër laa ko préparé maag Ousa ñoo ko doon préparé ak Papa Sow. donc mu amoon lu bari histoire yu bari yoo xam ne dundoon nañ ko. avant ay succès yooyu yëpp di am. donc nag ba lii amee ba ñoom Papa Sow xelam demaat ci man wax ma lu mu may doyee moo xam ne loolu mu may mën naa ko te am naa yéene bi. donc xool projet bi mu convaincre ma donc finalement ma ne damay dem jàmbaar Wrestling Academy parce que tamit euh, li may mbëbët ak samay ambition ak samay vision loolu la gën a kolal loolu la gën a àndal daal loolu la gën a àndal moo tax ma dem jàmbaar Wrestling Academy am na solo di si kontaan bu baax a baax a baax nag di ñaanal écurie bi yëpp mhm. ah, ñi nga euh, mi ngi door a sosu di ñaanal yàlla bépp mbër bu ci am combat rek ci saison bii di ñëw yàlla may la ndam parce que loolu mooy euh, njëglaayu école bi dooru ubbi. am na solo léegi nag fi ñuy jëm mooy euh, li gën a intéressant wala li nga xam moom moo gën a kii dañuy faraat ci wewu béykat yi Balla Diouf mi nga xam ne dañu xëyoon a gis ko ci làmb muy bëri mm-hmm. jékki-jékki benn mu taxaw ñu ne bàyyi na. Mm-hmm. ñu koy dégg yoof jégg mm-hmm. ko comme ni ñuy wax ay rumeur day dellu fa day demaat ja mu nga jàmbaar wrestling comme entraîneur. Balla Diouf moomu ñu classé woon comme entraîneur wala ñu jàpp ne bàyyi na làmb ñu farat ci wu bay nekk Balla dafa bëgg dellusiwaat ci làmb ji bëre comme mbër takkaat ngembam loolu nag moom la nit ñi bëgg a am lu leer ba tax ma tey ñëwal leen fii doomu aadama yi amateuru làmb yi ndax Balla Diouf moom dafa pare pour ñëwaat takkuwul ngem bu bëre wala. waaw Babacar loo gis rek dafay am lu ko waral. Mhm. Euh, dëgg la euh, Balla Diouf nekkoon na ci làmb ji di bëre. Mhm. def carrière. Mhm. pare nekk ci nekkoon ci ay tolof tolof mun naa ko wax sax du ay tolof tolof ay ndog-ndog yàlla defoonkat ma dem ba sama pasiyon at sama bëgg làmb génnoon ci man déggute laa gënoon am lu dégoût laa gënoon am que plaisir presque plaisir du dëgg. Mhm. ma dem ba benn moment yëgatuma daray mbër yëgatuma daray làmb. Mhm. comme nag ba ma ciy dugg maa ci dugaloon sama bopp. et gis ni kat làmb tool na foo xam ne situation yi tënk na ma benn xeetu tënk boo xam ne teg si benn blessure boo xam ne xaw ma fu ma ko doon waxee. Mhm. donc euh, lépp mu réunirul woon pour ma pour ma reprendre carrière bu normal Mm-hmm. ci laa réfléchir xam ne man mii kat maa ngi si maa ngi ci lëndëm goo xam ne mënaguma cee génn léegi ci laa def nag reculer pour mieux sauter. Mm-hmm. décider arrêter suma carrière professionnelle. Mm-hmm. arrêté ko donc bàyyi làmb. bàyyi làmb mais xool leneen leneen beneen njëriñ bu ma mën a am ci làmb. donc euh, ci laa dem ci association des lutteurs en activité évoluer fa ba ma fa jógee tamit ba ma xam ne man mii kat. li may xeex ak li may mbëbët tey mënuma ko gis fii parce que ambition yi day dem ba benn moment du bokk. Mhm. tamit j'ai démissionné nekk ci sama liggéey concentré wu sama liggéey donc ba jàmbaar Wrestling Academy taxawee wax dëgg yàlla euh, bañ ma jëlee comme entraîneur ma j'étais j'étais bien doyoon na ma loolu kase kase kase doyoon na ma pour ma nekkaat ci environnement wu làmb parce que essayé naa lu nekk tëgg naa làmb def naa lu nekk xalaatuma woon sama àdduna sax dinaa takkaat ngemb bay bëre sax entraînement parce que bokkul woon ci loo xam ne lu ma lu ma lu ma gëm la wala lu ma doon xalaat la mhm. yàlla di def nag euh, ba jàmbaar wrestling académie taxawee ba ñu reprendre entraînement yi ñu nekk vraiment ñoom Modou ñoom Franc Papa Sow gars yi ñëpp di ñëw entraînement ñuy diriger entraînement yi vraiment ma gis ni kat lii nii buñ ko toppatooyee jàpp ko sàmm ko mun na am njëriñ ci mbër yi ak ci xale yi donc ci noonu may foo gars yi Modou Modou bu ñëwee song ma ñu bëre ah, Franc gars yi ñuy bëre bëre yu metti ba benn jour rek père ba ma comme contact ba pare at gars yi rek père ba woo ma ne ma bàllal mun ne ma waaw mu ne ma est que xam nga di nga ñëwaat ci làmb mu ne ko ah père man day yaakaaruma ko de mm-hmm. mu ne ma lii nii di ma gis ngay def bu arrêté wul bu daggul mm-hmm. man dinaa dinaa dem outil promoteur mu tëggal la làmb mu tëggal la combat parce que boobu yëgaguma ko woon. ok sentir ko mi ma koy wax mais ay reetaan la ma jàppoon. Mm. fur et à yi di dem ñu dem nag ba mbëri yi wax dëgg yàlla commencé nag naa ma grand. Mm-hmm. non war nga mën a am benn ñaar ba léegi gëmuma ko woon. Mm-hmm. sentiruma ko. Mm-hmm. un moment donné nag. ma toog xool fi ma jaar yëpp. Mm. temps bi ma def yëpp faju bi ma faju. fi ma dugg yëpp ba mu leer na ma ni man instant yi nii maa ngi koy commencé yëgaat ci sama wér-gu-yaram sama santé d'abord laa njëkk a yëg avant ma yëgaat laa parce que la santé avant tout avant tout hmm. moom laa njëkk a yëg ba ma ko yëgee tamit waxtaan naa ceeg samay moroom samay rakk ñoom papaa ñoom ñëpp ma leen man daal maa ngi maa ngi mel ni maa ngi yëgaat war a ñëw ci làmb papa ne ma ah waaw waaw grand kooku ñun ñëpp dañ ciy sawar parce que mooy suñu mbébét parce que lii ñu gis ngay defee entraînement wax dëgg yàlla ku jeexal du ko def te sunu xel dal na que ni war na mu nga amaat combat ma ne leen baax na ba ma demee ba yëg ko nag ba sentir ne war ni war naa mën a bëriwaat ma miiru parce que man du ma jël décision nii rek loo xam damay sur de tête ma xalaat benn affaire rek def jël décision déedéet damay pare ma koy paramétrer xool ndax mën na nekk ndax man antan naa ko antan naa ko ah, ndax man lii may wax nii <laughs> dinaa ko assumer mm. ndax sacrifice yi mu laaj parce que bu ñu waxantee dëgg ba ma bàyyee bëre defuma dara lu mbër di def sama liggéey laa topp nekk ci yeneen affaire entraîné wu ma doxuma dara ay mbër mais nag fu faju am moom ci Sénégal. dem nga fa pour faj ci sous région bi. Mhm. dem naa fa pour faju ok lu ma liggéey fajoo. lu ma liggéey fajoo. bu fu ma wax ak yow nii li ma yëg sama yaram man rek maa ko yëg. yow rek ko yëg man rek ko xam. Mhm. ba tax na nag ma fas yéene jël engagement. lépp li nga xam ne mooy sacrifice bu làmb laaj. Mhm. ba nga xam ne ay jamono ba ma ciy toll xam fi ma bëgg a dem. Mhm. daf ma ko jaraloon. Mhm. tey jaral na ma lu ko raw. pour nga demaat ci niveau bi nga nekkoon demaat ci niveau bu ko raw xam nga Sénégal bu ñu déggee ni nit bàyyi na bëre ñëwaat na ci làmb rek ñu bëri dañuy tiit dañ naan dafa soxla xaalis ñii naan est-ce que nekkul ci problème. <laughs> ñi naan ni ma nekkuma ci benn problème. yaa ngi si jàmm daal maa ngi sant yàlla. Mm. maa ngi si jàmm. maa ngi liggéey yàlla mi ngi may suturaal alhamdulilah. Mhm. mais nag dafa am loo xam ne passion la. Mhm. passion nag bu ko nit amee am engagement am lu mu gëm lépp lu loolu laaj. Mhm. da koy def. da koy def. bu dee entraînement dinaa ko def. yaa ngi entraîné. rëpp donc fan dañoo dañoo arrêté woon entraînement yi ak confinement bi entraînement yu sew la ñuy def. Mhm. mais bu tabaski bi jàllee incha allah parce que instant yi nii ku wax dëgg rek tabaski bi moo xooj ñëpp. waaw loolu moom am na. du dëgg. Mhm. ba tax na maa ngi sumay activité maa ngi sumay liggéey en même temps maa ngi entraîné benn yoon par jour. yaa ngi dóor benn yoon par jour waaw damay damay wu parce que dama bëgg dindi lépp luy graisse. ci yow suma yaram. Mhm. donc euh, perte de poids bu baax a baax a baax a baax. bu poids bi demee ba dëñ nag. reprendre nag entraînement entraînement d'une manière boo xam ne euh, boo si jàppee forme mhm. doo neex a yëngal doo neex a sonn doo neex a dara mhm. parce que tamit nit ki moom lépp loo gis ay préparation la ay coach yu mag mhm. laay fréquenté wax dëgg yàlla ñu wax ma lépp lu ma war a def d'ici deux mois euh, séchage bi ma war a def séché wu carrément ba lépp luy dese génn sa yaram nga reprendre say entraînement nag booy chargé nga chargé booy booy def leneen nga def leneen. nga def yi footing laay def te footing long et doux laay def mun naa jóge fii dem par exemple jël corniche bi jël virage laalaguma suuf kekk bi rek laay laal parce que coach bi may diriger loolu la bëgg. loolu la soxla ci man. te benn yoon par jour lay entraîné ba tabaski bi jàll. Mhm. te mun naa wax ni samay ambition mënuma wax ni tey dama ñëw ci làmb ji rek dama bëgg combat kut ko kut. war naa préparer waat sama bopp. ah waaw laaj na lu bari de. laaj na lu bëri. waaw ah, parce que nag lamb ji moom yombut. waaw yombul mais nag. <laughs> waaw am na koo xam ne moom bu ma feebaroon ba tëdd hôpital sax leer na ma ne maa ko mën. muy gan ñu bàyyi ma ñoon loolu moom leer na ma. Baye Mandione nga bëgg a classe léegi wala may dem ci Baye Mandione mhm. damay <laughs> xam naa di nga di nga ko dóori xeer xam naa bu teel nga koo tudd mhm. mais Mandione moom yaakaar naa ne moom li ñuy wax lame ñu demut ci poos bi day bëri day xeex te day xuloo te day wax waaw loolu moom am na euh, léegi damay da tudd léegi Modou Lo Papa Sow moom du ma dugg ci seen diggante parce que loolu moom def la na nga ko waxee luy door la mhm. mais Modou Lo mi nga xam ne dafa am fu ngeen jaar fu metti ci làmb mu bëre ak yow dugg faas daan fa Gris Bordeaux daan Papa Sow daan la yaa ngi dégg mhm. seen combat ba defe naa mbëkkante sax am na ca ay daan ba pare dóor tey mu mel ni Modou loo moomu sa xarit sa sa xarit la wala bokk na ci ñu nga xam ne ñi mu gën a jege tey yow ci nga bokk lan la lu xew seen diggante. waa booy yi de wax dëgg yàlla ñoom ñoo ma bëgg seen bokk mhm. man xaw ma sax lan la man je pensais pas que ni euh, tollu naa foofu ci ñoom. Mhm. Euh, ci respect ci cër. ci bëgg nekk ak nekk ak man. wax dëgg yàlla Modou bëri nañu. tamit ñun ay professionnels la ñu ah. Mhm. on n'est pas des ennemis. liggéey mhm. moo ñu boole moo di li ñu boole woon mooy liggéey muy tàkkusaan mhm. te lépp lu ma xamoon at lu ma mënoon def naa ko jour boobu pour ma ko daan ko. te bu toogaatoon tey ma wax ko ko <laughs> lépp lu ma xam at lu ma mën def naa ko pour duma ko daan ko. yàlla def nag yàlla may ma ci kaw may may ko sama kaw ndam. ok ma koy féliciter encore une fois. àdduna di dox musuñu am relation musuñu tey mun naa wax sama génn faa sax. turu Modou bokk na ci. Mm. parce que Modou moo am combat at Gris Bordeaux ma ñëw entraînement ñu ne dama doon filmer parce que dama jege biram ñu ngi biram ñu ngi dafa jege Modou Modou daf ma fay nangam nangam te yàlla xam na ni période boobu noonu maak Modou du ñu déggante téléphone du ñu gisante seexu ñu wax séquñu benn relation. Mm. ba yooyu yëpp weesoo àdduna di dox euh, benn jour damay dox nii rek ci cité bi gis ko gaare sama kanam. wàccee vert nu mu ne ma grand ñu waxtaan voilà ne kafoore ma gis ni gaayen bu naes la xam nga munoon na romb dem yoonam nekk ci yeneen munoon na ne kii bëri nañu daan naa ko jeex na mais dafa taxaw jox ma cër wàcce otoom jox ma cër ñu waxtaan ma gis ni kat kii jox na ma cër te bu jàmbaar wrestling académie ta taxawee entraînement yi tàmbali mhm. Papa Sow xaritam la magam la mhm. mu ñëw di ko jàppale ci entraînement yi donc fekk may diriger entraînement yi maag yeneen coach yi fa nekk mhm. mais damay seetlu ni lépp lu ma leen wax léegi dañuy ñëw am programme sax ne lii la ñuy def lii la ñuy wax ma jóge fële ñëw woo ko yi ne leen non non du ñu def lii lii la def damay gis ni Modou ak Papa si ñu koy njëkk a appliqué lañ bokk. Mm-hmm. te duñ ci boole dara ak wax. Mm-hmm. léeg-léeg heure entraînement bi war a jeex heure temps ma continuer heure bi. une heure temps après. Mm-hmm. pour rek xool seen i attitude. Ah. mais ba léegi wax dëgg yàlla ñu wan ma nangu. wan ma respect wan ma cër ma delloo leen ko tamit ba mu mat sëkk. Mhm. relation yooyu rek lañ mel ni kon yaa ak Mourou daal relation bu naaj daal moom seen diggante kon affaire yi àddinaa ngi noonu. adversité bi am na solo waaye nag kenn xamul àddina fu muy mujjee yàgg maar mais da nga da léegi. sa boo xoolee àdduna loolu la pay boo xoolee père Birahim Ndiaye. Mhm. tuddee na tuddee na doom Mor Nguer. waaw Mor Nguer. Mhm. tuddee na doom père Birahim Ndiaye. loolu mooy àdduna. tey te yooyu c'est des exemples yoo xam ne képp ku kuy sportif rek. war nga ko mën a di di di di di di bàyyi xel. Mm-hmm. parce que tamit àdduna boo ci tolloo nekk xale di liggéey. Mm-hmm. jàppal ne da ngay liggéey rek bu bul ennemi. Mm-hmm. bu weesoo bu sport weesoo. jàmm mooy des parce que tey ku xool ñoom du Doubalees ak ñoom béygee bu ñu demee bay àndaat. ah di bokk ay association kon mbër yi fi nekk tey nekk xale war nañu bàyyi xel ci loolu xam ni carrière la ñuy def liggéey la liggéey bu weesoo jàmm moo ci des ñu bañ a am benn animosité suñu biir. Baye Mandione yàggutul léegi lu tax nga jékki may ma nga jékki attaqué Baye Mandione. non Baye Mandione dama xam ne moo feebaroon ba tëdd hôpital maa ko moom. ah non déet Baye Mandione da nga da nga xoolal télé xoolal fële bàyyi ngeen mhm. ba tëdd da ngaa jàpp daa mënta bëre daa mënta xeex wala lu tax nga ne boo feebaroon ba tëdd hôpital Baye Mandione dafa am fit. waaw Baye Mandione daa mën a bëre Baye Mandione daa mën a xeex Baye Mandione daa mën a fecc Baye Mandione daa mën làmb te loolu daf maa ñor trop te ah. suñu carrière ñu musuñu bëre ñëpp nee nañ man guerrier la ñëpp nee nañ Baye Mandione guerrier la dañ ko wane. xanaa yow bi nga ñëwee sa retour bi kon dañ la ne retour bi Baye Mandione nga a commencé. ma Baye Mandione laa war a commencé man maa toog. lu tax nga jekki rek sa sa tudd Baye Mandione. mais parce que dama xam ne dama dafa dem Gambie war a bëree. waaw ah. caaxaane combat ba combat ba yàqu. walla ah, yow bu bu loolu caaxaane la de Baye Mandione mi ñu fay mu entraîné damay signature contrat am takk ngembam dem ba Gambie Gambie ak Sénégal war a bëri nga ne dafa fooyee combat. waaw mais bàyyi ma ñëw xam nga man tey par man du ma doon bu ma doon ngemb tey waaw ma ngemb jóge fii ñu fay ma ma jóge fii Sénégal ba Gambie dem lu Gambien yi mën a def dinaa bëri bu fekkee ne gëm naa sama bopp pour daan damay bëre pour daan léegi nag waaw comme combat boobu yàqu na waaw ah, te dafa am lu mu fa bëggoon wane dama bëgg mu wan ma ko te ko bàyyi ma ñoon mosuñu bëri te suñu combat dafa neex te loolu c'est logique loolu foofu rek laa ko teg yow xam ne njoon du ragal yaa ko wax léegi xam naa ne du ragal euh, kon nag xam nga bu demee Gambie itam est ko a a bëri dañ koo tegal loo xam ne bokkul ci ay mu bañ ko waaw loolu yëpp mun naa nekk ay principe am la man du ma ci wax dara mais daal bu ma sañoon mu bëri mais daal wax ji wax ji yëpp mooy bàyyi ma ñoon man hmm. damaa gëm ni bu ma feebaroon ba tëdd hôpital maa ko mën soo feebaree ba tëdd hôpital yaa mën ko gëm loolu am na solo njoon de dina la tontu ndax xam naa njoon moom du ko yàq fenn léegi loolu leer na yàgg maar mën nañoo génn foofu dugg ci leneen leneen li ñuy dugg mooy lamb ji fan yi gis nañ combat yi di taxaw di taxaw di taxaw surtout combat yu mag yi léegi ma ñëw ci koo xam ne lépp partagé ngeen ko ci lamb muy Gris Bordeaux retour am Balla Gaye numéro 2 maanaam bokk revanche ndax Balla moo gagné woon par ay avertissement premier combat bi mhm. Gaston Mbengue xëyaat taxawalaat combat boobu combat boobu bi nga ko yëgee loo yëg si combat Gris ak Balla ramas waaw parce que làmb moom ay mbër bu njëkk dañ daa gis suñu papa yi di daje ay deux trois quatre cinq fois mhm. donc loolu yàgg na ci làmb mhm. tey Gris Bordeaux bu bëreeg bomba bu bëreeg Balla Gaye mhm. ah, Balla Gaye daan ko par décision par avertissement ah, par tey ñu doxaat ba làmb war leen boolewaat ah dañuy gis ni yoon la rek mais combat boo xam ne sa micro euh, combat boo xam ne tey Mm-hmm. risques yi yëpp ci Gris Bordeaux la nekk. Gris mooy risque. Eh, Gris mooy risque. lu tax nga wax lool. seen premier combat Balla gay moo doon risqué. Mm. seen premier combat risque bi ci Balla gay la gënoon nekk. Mm-hmm. mais bii nii risque bi ci Gris Bordeaux la gën a nekk. Mm-hmm. parce que tey quoi qu'on puisse dire revanche lay jëli. revanche lay jëli. lu ñu mënti wax revanche lay jëli. te combat la boo xam ne defe naa ni su ko préparé wul normalement. Mm. Euh, jël ko au sérieux Hmm. ànd ak ñi mu ci war a àndal. mun hmm. naa wax ni combat bi moo nar gën a ñaaw ci carrière am. Hmm. waaw bu ko tegul ci yoon. su ko tegul ci yoon. ànd ak ñi mu war a àndal. entraîné la mu ci war a entraîné. comme bu sàgganul combat bi mooy gën a ñaaw ci carrière lu tax nga ne ànd ak ñi mu war a àndal wala bu ko tegul ci yoon euh, maanaam maanaam lu tax nga waxe foofu yow. Gris Bordeaux dina xam. waa écurie Fass nañ xam. combat bi. bu ñu dankul dankaloowul doon benn say mm. lépp lu ñu war a def mm. at fépp fu ñu war a jaar mm. ñu jaar fa ba lépp ok ci jour ji combat bi dinañ ci am lu leen metti trop